mbokki baaxoo di teewlu xibaaru bambuk dal leen a jàmm ci seen tënkum xabaaru bés bi ñu di ko tàmbaleeg euh, incendie bi nga xam ne am na euh, niki démb fële ca euh, dëkk boobu di Papilougué nekk ci commune bu Maka Yop fii ci département bu Koungheul Euh, loolu nag euh, tax na dëkk ba daal di euh, lakk ba kër yu bëri daal di si lakk gannaaw ba nga xamee ne buñ sukkandikoo ci kàddu préfet jaatam mi nga xam ne mooy yor jiite arrondissement bu Missirah Wadène daal di ne rek ne safara si mu ngi jógee ci àll ba ñëw daal di dugg si dëkk bi looloo tax mu daal di lakk li nga xam ne mooy dund gi nga xam ne moo fa nekkoon waaye tamit néeg yi nga xam ne ñi dëkkee si dëkk ba ñoom ci lañ nekkoon. loolu nag tax na dégâts yi bëri am fa moo xam ci wàllu matériel ak néeg yu yàqu loolu nag tax na ñi nga xam ne ñooy population bu dëkkee côté boobu daal di sàkku ci nguuru Sénégal rawatina kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci euh, gox bi ñu daal di leen ñëw dimbale leen ngir que ñu mën a euh, defaraat seen dëkk boobu nga xam ne safara si daal dina koy laal bu baax. gannaaw loolu tamit xibaaru baamu daal di ci taxaw bu baax ndax euh, woote na téléthon képp koo xam ne. yaa ngi koy bàyyi xel ak moo xam fii ci Koungheul ba ci foo mënta nekk ci Sénégal ba ci bitim réew lépp loo am moo xam ci wàllum koppar wala ci wàllum yére nga daal di leen ko yeggee ngir ko ñu mën a dimbale euh, dëkk boobu di Papa Louga nga xam ne euh, safara su metti moo fa dugg daal di lakk dëkk ba yépp euh, gannaaw loolu ñaaddu ci waxtaan bi nga xam ne amoon na démb fii ci salle Sadioka Top ki ko jiite woon di honorable député Fanta Sall doon sekk waxtaan ak jigéen ñi nga xam ne ñooy liggéey ci projet programme boobu nga xam ne daal dina koy taxawal euh, tuddee ko euh, taxaw jigéen ñi programme boobu nag muy laal jigéen ñi nga xam ne dañ leen daal di recruter ñi bale école yi nga xam ne ñoo nekk fii ci commune bu Koungheul te euh, moom ki nga xam ne mooy honorable député Fanta Sall moo amal programme bi di ko fay ci xaalisam loolu nag tax démb mu dajale woon jigéen ñi nga xam ne ñoo fa dem liggéey doon leen jox seen ñaari weeru salaire waaye tamit daal di ci toftal waxtaan boo xam ne lu jëm ci wàllum naka la ñuy def ba gën a mën a dëgëral seen bopp en tant que jigéen waaye tamit jàppale ki nga xam ne mooy euh, président Macky Sall mi nga xam ne moom tey Fanta Sall lépp lu mën rek euh, moom moo tax euh, mu daal di koy mën gannaaw loolu tamit daal dinay xamle ne yokk na lim bi ndax at yi ñu weesu cent dix personnes ñoo bokkoon ci programme bi gis na ne ren yokk na ko ba cent cinquante jigéen gannaaw loolu tamit fas yéene William foofu ndax fas yéene na yokk jigéen ñi ngir que non seulement ñi bale école yi waaye tamit moo xam daara yi moo xam jumaa yi ba ci lieu public yi tamit ñu am ñu koy bale ñi nga xam ne tamit ñoo teewoon ci jotaay bi sàkku nañ ko bu mënee jël li nga xam ne mooy programme bi yóbbu ko au niveau départemental moom Fanta Sall mu daal di yëkkati kàddu ne dina def képp lay kàttanam ngir que bëgg-bëgg boobu mu mën a nekk gannaaw loolu tamit jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci programme bi daal dinañ yëkkati kàddu di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal wax ne dinañ ko jàppale ba nekk député maire fii ci euh, commune bu euh, Koungheul euh, gannaaw loolu ñu àddu ci final bi nga xam ne amoon na fële ca Touba Limende ci commune bu Lour nga xam ne président du conseil départemental de la jeunesse de Koungheul di Babou Thioune moo amaloon tournoi bi tuddee ko tournoi fusal mbokk daal di koy tuddee ki nga xam ne mooy maire Koungheul di Alioune Badara Ly moom nag daal dina fay dem ak doole ndax jël na mboolo mu bëri yóbbu leen fa boole ak ay jeu de moyens yu bëri pour équipe yi nga xam ne. ñoo dem participer ci tournoi bi boole kaak mise financière boo xam ne cent cinquante mille vainqueurs cent soixante quinze mille vainqueurs cent mille organisation ak yeneen euh, ndàmpaay yi nga xam ne wala jàppale yi nga xam ne daal dina koy indi foofu ca euh, final ba waaye gannaaw loolu tamit euh, daal dinay xamal ne moom ci yoonu président Macky Sall ci la nekk di liggéey te fas yéene na ànd moom ci lépp loo xam ne yëkkati na ko rek mu jëm ci wàllum développement wu Sénégal te loolu daal dina ci woon ndaw yi bu baax rawatina ñu dëkkee foofu ci commune bu Lour Escale ngir que ñu gën a taxaw jàppale le président Macky Sall ngir mbëdd tam ak bëgg-bëgg bi nga xam ne am na ko ci réew mi mu mën koo matal gannaaw loolu tamit ki nga xam ne moo initié programme bi di Babou Thioune daal dina xam ne ni lii tàmbali la rek ndax commune bi fas yéene nañ amal ay programme yu bëri yoo xam ne dañ koy daal di jagleel ki nga xam ne mooy Alioune Badara Ly ngir rendre ko hommage ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy def ci ci commune bu Koungheul ak département bu Koungheul gannaaw loolu ñaadu fële ca Guinée équatoriale ab feebar bu bees moo fa eh, daal di gane si mu tuddee ko virus eh, Marburg nga xam ne ni ki eh, juróom-ñaari fan ci weeru sept janvier ba juróom-ñaari fan ci février bii la la fa tàmbalee am loolu lu toll si juróom-ñeenti nit gis nañ ne daal dinañ si ñàkk seen bakkan waaye tamit am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi am feebar bi naam sax soreegul waaye tax na loo tax ministre de la santé bu nekk foofu ca Guinée équatoriale daal di activer li ñu naan alerte sanitaire ngir que askan bi yëpp gën a mun a xam ne feebar bi feebar bu bon la bu mel ni Ebola ngir que tamit ñoom ñëpp ñu mën cee dugal seen loxo ngir que mu bañ faa indi ay yàqute yu bëri di fàttali rek na ñi nga xam ne zone bi nga xam ne ci la gën a laal mooy zone bu nekkee frontalière Gabon ak euh, Cameroun euh, gannaaw loolu tamit di fàttali rek na feebar bi mu ngi tudd fièvre hémorragique bu Marburg di am ci province boobu di ci euh, Nteme